sàkku ngërëmu ñaari nit imaam Shafii yu nee na ñaari nit dong ñoo jar sàkku seen ngërëm ñu ne ko kan kan mu ne ummuka wa abaaka sa papa ak eh abaak bi sama turu papa <laughs> yàlla xam na jàngale di ko jaarale sama turu bi ummuka wa booy sàkku ngërëm ci àddina sàkkul ngërëmu ñaari nit sa yaay ak sa papa bu la xasee gërëm liñ naan afasa ah, jeex na alaaji pap moytul ma di ànd ak ku ndeyam gërëmul eh alaaji pap seet loolu ñi seen ndey yi gërëmul dañuy bizarre ñaaw ñu kukk lëndëm c'est ça le problème mhm. alaaji pap boo amul ñaanu wuy jur alaaji pap lu yuutu doo ko jot mhm. alaaji pap bu la sa baay gërëmee sa yaay gërëm la ñaanal la keneen koo faale yow la neex doom ndeyam da caa foor bu koy nampal doo koy xool. alaaji Pape way jur yàlla dafa insister ci moom ba wax ni man sunu borom pour ma gërëm la sax damay bàyyi ba xam ñoom lan lañ wax. insister ci loolu kon. yàlla nee na duma jiitu ngërëm ci ñaari way jur. damay xaar ñoom ban gërëm. Pape sunu borom nee na fenn rek laay xaar ci doomu aadama mooy ci côté ngërëm ci ay way juram du ma tëb tëb man yàlla gërëm ko te xaaruma ba ndeyam ak baayam gërëm. waaw ba léegi léegi am na lu xale yi xewal. daanaka Sénégal léegi dafa mel ni genn wàll gi yëpp dañoo bëgg a siiw léegi man dama leen di jox stratégie bu baax boo xam ni da ngay siiw par la force te siiw mooy bayre mhm. te dégg naa ñu naan bayre tuddul bayre ku sa bayre nga am bayre yéen ñi bëgg bayre nag bëgg siiw day leen teral seeni baay ba am bayre bayre bu constant maanaam une bonne période da ngay am bayre loolu dafa bokk ci njëriñu ñaanu waay jur mais daf ci bokk alaaji Pape mënoo dëkk ci di seddal sa xolu yaay sa àddina di metti mhm. mënoo dëkk ci di teral sa ñaari jur alaaji pap sa àddina di naqari mhm. doom ju la raw mi ngi la rawee ci ñaanu wayjur mhm. alaaji pap balaa dara xew lijjantil sa ñaani jur ba mu féete boor tegee à côté li yuusu daj ci élément nag ndey soxna moom la ko suñu borom fayee ci xew ci damaa dégg ci oustaz Iran Ndaw mu nettali ko mu ne bokk na ci li tax mu bëgg Youssou Ndour mooy dafa dégg benn émission Youssou ni mhm. bi muy commencé man mhm. dafa fekk yaayam am benn soox bu ndaw bu ko daloon mhm. nee na mu xaw koo gêné mu ne balaa fiix ci àddinaam da koo faj ba yaayam di dox normal nee na keroog bi mu ko fajee la nelaw ba biddanti ndax xelam dal man ci Youssou laa gisee ba ni mu toll bu bàyyam ñëwee mu tiit eh sama papa bi ñëw na papa bi ñëw na papa bi ñëw na te ñun ñu dul dara sax yenn saa yi sa papa war laa mën a sonal sama classe gi la nga koy liggéey mais Pape loolu mais ba léegi Youssou ngi ragal. waaye góor bi loolu. loolu dafay valable ci ñëpp. gis nga doom ju ndeyam gërëm. Eh. doom ju ndeyam gërëm ku ko yéene torox yaay torox. Ndiaga Fall loolu la mu wax léegi bàyyi rek. Alaaji Pape il faut réew mi xëppiwaat seen bët. jot na ñi am ñaan du ñu tardé. déedéet. Alaaji Pape ñi am ñaanu wayjur mën nañoo guddee mais duñ tardé. alaaji pap ñi am ñaanu way jur mën nañoo jeng mais duñ daanu àddina mbir yépp mu ngi dépendre ci way jur ajaratu xadi gay ñaanal na safiyatu yaay papi caam yàlla dénk la teraanga alaaji pap teraanga bi dàq ci teraanga yi nag mooy jël sa yaay mbaa sa baay yóbbu màkk mu ziyaar ji yonent bi Aïda Samb moom laa ko dégg mu jooy ci émission boobu ñuy jooye moom nee na li ko gën a naqari ci àddina ku góor góorlu ba wan sa yaay yonent bi alaaji pap ku góor góorlu ba wan sa yaay sayduna muhammad mhm. mbaa nga